ñoom ñu ngi koy wax ba tey dégg nañ mouvement m d di wax ne dinañ kalaame juridiction internationale yi ci loolu nga xam ne am na ci réew Sénégal. Euh, benn xam nga euh, wax ci ay situation yu mel ni ci néew man duma ci polémique li ci jar mooy massar wu leen jaale leen ñaanal leen yàlla regretté ko parce que ay doomu Sénégal lañu. tout simplement. déedéet bàyyil ba ma wax président wax na démb. nee na ku ci nekk dinañ la wutal ndàmpaay bu nga xam ne day ànd ak waxtaan massawu dans la vie là tund ak dee ñoo mais am na dee yu nga xam ne kenn ñaanu ko yàlla. je m'incline devant la mémoire de nos morts surtout ci circonstances yi parce que moo njëkk a bees maintenant exploitation politique bi ci am. loolu le moment venu debaa boobu dinañ ko am Fat Bintou man tey dama ñëw xam nga balaa ma ñëw war ngeen ko xam ba ngeen ma affiche ba ngeen ba ngeen waxee démb ba léegi damay ñëw li ma jot ci téléphone ba léegi maa ngi jot sax mën na am coup de fille bul dem situation bi bul dem président wax na dëkk bi calme na bul dem boo demee bul wax mbaa booy wax bañ demee ba xam ne ne affiché nañ mënuma bañ a ñëw ñu ne ma boo demee jëlal toppal ci ginnaaw président li mu wax nga wax ko ma ne leen dina jafe de topp ci tànk président parce que moom mooy président am na lu mu wax ba pare te ñun ñi moom lañuy gën a déglu mais bu ma demee dinaa jéem donc bu ma ñëwee tey déglu rek di ma la waxee rek ñëw tey bu ma ñëwee fii dina damay polémique bu doon tey histoire la rek politique kii wax na lii kii wax na lii dinaa la ci wax lu gàtt ci loolu lu gàtt ci loolu la wax wax ju bëri na fi wax ji ak a fee bari nit ñi nee nañu ay étranger ñëw nañu fi rax nañoo xale yi ñeneen ñi ne non xale yi étranger yi bu ñu ñoo leen ne ñeneen mais il faut pas ouvrir pour xam ndax boo yemee ci regretté euh, rek ak ak mastawu également mhm. xam nga enquête indépendante mooy lan mooy indépendante enquête indépendante mooy des institutions solides yuy def seen enquête correctement xam nga démb wax nañu ne ñoom gendarmerie bi am nañu confiance gendarmerie bi ñun am nañu confiance ci police bi am nañu confiance ci juge yi ñoom am nañu confiance ñooñu lañ fi teg pour ñu àtte ñu réew lañu indépendante mooy ñan partisan des des organisations partisanes fii dafa am ñu yore réew mi am opposition mooy ñu nga xam ne dañoo bëgg ci réew lan mooy partisan ku yore réew mi yow yaay diriger réew mi ci cinq ans institution yi am na nu mu taxawee maintenant discours politique il ñu koy différencier. dañu dañu wax mor doom nga wax regretté wax ñaan te waxoo lu jëm ci enquête boo xamante ne war nañu ko def pour situer waaw dama leen lan nga ci gis bu fekkee ne plainte ñoom ngi koy wax nga wax li nga ci jota ref yëpp mais ma la ndax jotul pour ñu am enquête pour situer les responsabilités non boo nee plainte xam ma man li ma wax plainte bu ñu plainte da ngay plainte fi nga war a plainte boo plainte fi nga war a plainte foofu la ñuy jël tey ñun gisuñu système bi nga xam ne dañuy toog ñu ne dañuy plainte pour am commission indépendante loolu amul ci suñu constitution réew. Mm-hmm. amu ci da ngay plainte bu la neexee nga dem plainte ci procureur bu la neexee nga dem plainte devant un officier de de de police judiciaire loolu lañ fi xam mais gisuñu plainte ñëw ne damay plainte ñu def ma man mi plainte naa bokk ci ñi nga xam ne man maay choisir ñi may ñi ñi ñi juger bu ñu taxawee bu ñu nee indépendante ñoom ñu dem ne non commission bi indépendant na mbaa indépendantul lan mooy indépendant ak lan moo dul indépendante débat boobu dama ne. tey débat boobu débat ultérieur la mu ngi suñu kanam ah, plainte bu ñëwagul la mm-hmm. bu fekkee ne dafay amay werante ak yooyu nañ ko bàyyi bës tey mm-hmm. du werante sénégalais yi maa ñun ak yéen maa ak la yëpp laa wax man da maa ngi bañ werante bi nag sànq ba léegi bu leen dugg ci werante bi quoi nañu wax ma ngeen ma ay question ma tontu de façon précise dafa am ay dégâts également yoo xam ne nemmeeku nañu ko mu jëm ci Auchan yi nga xamante ne ak yenn entreprise étrangère yi nga xamante ne xale euh, ne war nañu ko mën a décrypter yéen ci seen côté euh, pour jox confiance entreprise euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew bi xam nga loolu démb discours président lu mu gàtt gàtt ak lu mu consi consi wax na ne loolu baaxul ci réew daf ci baaxul lu baaxul ci réew nag dañoo war a taxaw xeex lu mu xeex bi laaj dinañ ko def xeex loolu pour bu mu fi amatee lu mu laaj rek dinañ ko def parce que alalu réew mi moo yàqu alalu réew mi moo yàqu parce que alalu doomu réew mi moo yàqu ay nit lañu mbaa ay société yu nga xam ne société réew mi la de droit sénégalais ay sénégalais bokk ci dugal ci seen alal di ci liggéey di liggéey la ay sénégalais loolu dañ koy condamner de façon nette et précise condamner tamit discours bi ko indi parce que discours bi ñoom ñëpp xam nañ ko depuis un certain bout de temps gars yi dañuy lu fi ñëw rek bu boo taxawee boo defee tuuti ñu ne la li nga sol kii couleur bi couleur de France la même bleu lii lii la attaqué ciblé loolu baaxul baaxul baaxul day yàq réew amul benn réew fii am nay sénégalais yu nga xam ne France dañu y' a beaucoup plus de sénégalais en France que de français ici au Sénégal a beaucoup plus de français à l' étranger que ici mais ñëw ciblé ciblé c' est vrai bu fekkee am na lu ñu war a refanaat mu gën a équilibré dañ ko def mais du ci discours ciblé jël leen Auchan est ce que Auchan mooy intérêt français fii total la ñuy essayé woon après jóge fa dem ci kii. woo nit ñi ci ay situation exploité situation bi parce que xam nga booy jàngat ñoom ñu ngi wax révolution seen jàng ci révolution mun na am sorewul parce que fii révolutionnaire yi ñoom seen jàng ci révolution révolutionnaire mooy ñi nga xam ne ba ñuy def politique xam na ne boo engagé wu mën nga ci mën nga ci bàyyi sa bakkan fu boobu temps Sénégal loolu la ñu xewoon ñu engagé ko xam nañ dafa am ay conditions subjectives ak ay conditions objectives cela veut dire que da ngay exploiter benn situation loo am dëgg dëgg dëgg il faut nga exploiter benn situation fexe ba situation boobu même bu fekkee ni du loolu nga doon xeex nga sukkandiku ci pour déstabiliser réew mi loolu la ñuy defar ah. woote ci ay contre Auchan woote contre nit ñi lakk leen tel këru foofu nga waroon commencer lakk leen këru diw lakk leen këru diw parce que àndul ak ñun mu ngi défendre keneen mu ngi wax fii wax na àndul ak bu fekkoon ne ku ñëw rek ànd koo ku wax ñu àndul ak yow ci Sénégal ñëw ne nañu lakk sa kër mbaa nañ def li problème bi day euh, donc loolu tamit. Mhm. la nga ci wax ci lakk kër yi. <laughs> waaw loolu xëy na dinañ ci ñëwaat léegi ñu ngi ci apaisement yi ba léegi comme ni nga ko waxee waaye ñu gis ne euh, au delà peut être ñi génn pour manifester euh, contre ñoom lu ñu jàppee injustice bi ñu teg ci Ousmane Sonko ndaw ñi euh, nekkin wi ñu am ci Sénégal xëy na gënulu leen métti na mbas mi ñu jaar na fi mu doon jafe-jafe fi ñoom njiiti réew bokk na ci décision daar daar yi mu jël comme ni nga ko waxee sànq muy lever couvre nga xam te yóbbu na ko minuit ba 5 heures du matin est ce que loolu mën nañu jàpp à travers disque bu def euh, il est de son peuple. mais bien sûr xam nga revendication euh, jeunes yi bokk na ci seen condition sociale. Mm-hmm. crise bi ñu nekk crise là c'est une crise économique. nga xam ne day am répercussions sociales. Mm-hmm. président jàppale na fi ah jàppale nañu y a beaucoup de bourses sociales. lu nekk def nañ ko mais père de famille yi lañ koy jox xam nga man loolu sama analyse personnelle intellectuelle alors que jeunes yi ci biir kër yi mun na am aide boobu eggul ci ñoom il faut ñu xool lay demee ci jeunes yi directement parce que mën nga jël xaalis jox ko père de famille am mbaa parce que affaire bi doy ko mbaa am na lu mu mun ko def même bu dee jël nee jeune bi mu dem dugg na ci entreprise yi mille milliards dugg na ci yi dugg na ci famille yi dugg na ci fépp mais mille milliards yooyu mun na am bu ñu jëloon structuré ko jël ko jox ko xale yi directement mun na am situation bi duñ fi nekk tey problème problème am na il faut que pour ñu régler loolu il faut ñu wuti xerem il faut ñu jël ci affaire boobu donc lenn am na ci couvre-feu bi nit ñi nee nañu dafa am crise sociale crise sociale bi parce que nit ñi nga xam am na ñu nga xam ne dañ doon liggéey guddi am na ñu nga xam ne dañ doon liggéey ba mu xaw a guddi jege du ñu mun a ñibbi am na ñu nga xam ne li ñuy am xaalis pour jënd li ñuy lekk ci guddi gi lañ koy liggéeyee suba ñu jënd ko ñi buñ ko amul duñu ñu ñuy jaay lekk duñ duñu leen jëndal donc pour couvre-feu bi am na effet sociale bu mu am problème bi